wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taslima ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant seexul xadim suñu yaakaar di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér balim naa la sëriñ Tuubaa mu def ko te ànd ko sagom noonu lañ koy ñaanale sëriñ Abdullahi Mbakke xalifa Mamor Jaara borom Caam suñ borom dolli ko kattan balim naan ci ëttu borom saam mu def ko te ànd ko mbooleem njaboot gi yëpp di ko ñaanal mbooleem sunu xalifa yi nga xam ne ñu ngi toog ci seen jataayi wayjur yi ak seen jataayi maam yi sunu borom defal leen tawfeex bañ àggale seeni yéene te àggale ko ci seen sago mbokk yi nii bàyyi xel ñoo ngi fii ci saamuk sëriñ Abdou Latif di waajtaayu màggal gi nga xam ne sëriñ Abdou Latif moo ko fi daan def di sant sëriñ ah, Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul tey jii nag daayira bi nga xam ne moo lëkkale seeti sëriñ Abdou Latif yi organisé fii waxtaan woo xam ne ngir fàttali nit ñi dunduk sëriñ Abdou Latif ak fàttali taalibe yi itam fi war a tegaat seen tànk ak itam képp koo xam ne ñëw na fi itam jële fi bind boo xam ne bu ñibbee xam ne wuy si woon na woote bu matu woote tax nag ñu ci organisé jataay bii nag fas yéene ci ànd ak Serigne Moustapha Dieng di boroom xam-xam dëkk fii ci dëkk bi nekk koo xam ne kenn nattableetul xam-xamam nekk koo xam ne itam kuy gëstu ci xam-xam la te nangu cee sonn yor fii daara nag jàngale alxuraan waaye itam ñu ànd ceeg Serigne Mame Mor nga xam ne di doomi sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Abdou Latif ànd ceeg Serigne Abdou Latif Jaxate nga xam ne itam dëkk fii ci dëkk bi Serigne Abdou Latif yar ko ci loxol boppam kon dañuy daal di jox kàddu gi sëriñ Moustapha Dieng mi nga xam ne moo war ubbi waxtaan wi. ci thème am solo boobu nga xam ne moo di as ci commentaire bi sëriñ Mamor Mbakke Serigne Abdou Latif Jaxate dana ci ñëw nu mu gën a yaatoo ci dundu Serigne Abdou Latif kon Serigne Moustapha dañ lay jébbal kàddu rek nga nuyoo ak mbooloo mi. aouzu billahi min asheytaan rajim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 di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikhana ahmad al xadim radiallahu anhu noo ngi leen di niyu di leen ziyaara di jël ci nuyu bi ak ziyaara bi it kilifa bi ñu nekk di sëriñ cheikh abdou latif di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te ko ak mboolem ay rakkam yi mu ànd liggéey bi di ziyaara it bokk yu baax yi ñëw bokkal jotaay bi di seet sëriñ Abdou Latif yépp di am mbégte mu rëy ci seen liggéey bu rafet bii nekk jotaay boo xam ne ubbeekaay la ak it euh, jéem dundal ruuxi jaam ñi ci lu leen jariñ ci bis yu mel nii kon ñëw leen ndokkee lu baax di ñaan yàlla sàmm leen te yàggal leen te wéral leen ba seen yéene ci liggéey bii ngeen àggale ko fu kawe njortu di yu baax yi di ñuy topp ci Lamfal FM ak waar wi TV ak Rafaa'i TV ak rajo bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaan suñu ko fekkee kenn jàmm ak it ñi leen di ñu ñu topp ci i rajo yi ñu ngi leen yu baax ñoom it di leen ñaanal jàmm mu mel nii tomb bi ñu bëgg a waxtaanee ak mbokk yi mooy baatu sant mun naa arab di wax ashukru wala doo ko wax sant euh, baat la boo xam ne baat bu gàtt la waaye lu làmboo njariñ yu baree bari la ndax bu ñu demee ci delluwaayu jullit ñépp di alquran dañuy gis ne suñu boroom kuy yittewoo la bàggub ci alquran ci barab yu wuute waaye ak it ci tëggiinu wuute léeg-léeg mu indi baat bi mu nekk mudaarion ifraadal ko léeg-léeg mu indi ko mu nekk eh, jamu léeg-léeg mu indi ko mu nekk ismu fail léeg-léeg mu nekk sifa alawa sa mubaalaxa léeg-léeg mu nekk it ismu mafuul li ma teg tegtal nag mooy baat bi dafa yitteel suñu borom te mooy baatu sant muy lu am solo yaa dogal baatub sant te mooy remercier booy xool ni mu amee ci nit ñi la amee ci lépp la amee ci lépp ba ci mala yi sax dañuy jëflante ci yu mel noonu ci ko séq ak moom teraanga bu ko defee nag baatub sant baat la boo xam ne lu mat bàyyi xel la waaye lu mat xam la lu tax mat a xam te bàyyi xel ndax yàlla daf ko yittewoo te it jaam bi su xamul luy sant ba bañ koo def loolu kat mën na ko indil jafe-jafe diggam ak boroomam xam ne dañuy wax ne ashukru fii muqaabalatil kufru maanaam boo santut da ngaa xarab xarab mooy weddi te nag boo santut weddi nga te ku ne xam ne ki weddi moom la ko yàlla dig ab safaan la ba ci at jullit sax bu santut jullitam matatut kon baatub sant lu gàtt la waaye lu làmboo njariñ la te jaam nekk war ko xam bi yàlla waxee ci alquran ne wa in taudu nicmatallahi laa tuxsuuhaa wa in taudu nicmatallahi laa tuxsuuhaa bu ngeen doon lim xéewal yàlla yi seen jëmm yéen nit ñi laa tuxsuuhaa mënu leen koo takk te liñ ci mën a takk sax mënuñ coo jox yàlla njukkal goo xam ne moo ñu ca war ci dëgg-dëgg wa asbaga aleykum niamahu zaahir na wa baatina loolu alquran la xoola wa asbaga la wax maanaam yàlla sëmbatal yoor wàcc ci yéen niamuhu yii feeñ nga di ko gis waaye yee nëbbu li muy tegtal kon yàlla gis na ne defal nañu teraanga kon nag baatub sant leen mooy rek gore leen ah, mooy gore leen moo tax wax ci suratu baqara fadkuruni adkurkum washkuru lii wala takfuru nii fadkuru nii dee leen ma dee leen ma tudd ndax dikrullaahi buñ ko waxee tudd yàlla ci làmmiñ moo ci gën a néew làmmiñ moo ci gën a néew yaa ne fadkuru nii adkurkum bu ngeen may tudd ci seen làmmiñ waaye di ma fàttaleku ci seeni jëf seeni pas-pas adkurkum ma yëkkati leen waaye nag washkuru li sant leen ma mooy na ma delloo njukkal ci dama leen defal waaye nag wala takfuruni bu leen weddi weddi mooy bu leen xarab euh, jaam bi diggante jaam ak jaam rek jaam bi la defal santoo ko loolu baaxut rawat na jaam ak boroomam te xéwal gi njëkk ci xéwalu jaam bi mooy li ñuy wax ni'matul ijab mooy yàlla amal la amal gi la yàlla amal loolu xéewal la ndax kañ bàyyi xel ne garab gi nekk garab nekk gi mu nekk garab ma ngi ciy sant yàlla ndax day day bég ci ne yàlla def na ma ma nekk mbindeefam donte def na ma garab sax man sant naa loolu ci nekk gi mu nekk garab ndax kat li yàlla wax ci alxuraan ne loo gis ci àdduna mi ngi jaamu yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi mooy loo gis mi ngi jaamu yàlla kon xeer wi mi ngi sant yàlla nekk nekk gi mu nekk xeer lépp noonu kon nag jaam bi ni'matul ijaad mooy yàlla def nga nekk mbindeef loolu amee nga ci yàlla ak cant muy benn ni'matul ijaad it nga war cee sant yàlla muy benn waaye it ni'matul imaan yàlla ma la jaam bi it nga nekkaat ab jullit gëm yàlla te yàlla bind mbindeef yu bare baree bari gëmuñu ko bi yàlla bindee jaam mi ne li tax ma bind nit ak jinne mooñ jaamu ma kon jaamu gi mooy raay bi tax yàlla binduñu waaye nekku na raay bi ñëpp dañ ko war def nag mooy raay bi waaye nag yàlla xam na ne du doon ñëpp koy def kon ki yàlla may nga nekk ab jullit gëm yàlla loolu ni'ama la ci ci ni'matu min min anamillah xéewal ci xéewal yàlla yi te loolu jaam bi war sant yàlla waaye am na koo xam ne gën na yàlla waaye jaamu yàlla yomb ko yow yàlla dogal nga nekk mbindeef gën yàlla jaamu yàlla yomb la loolu génneen cant war na la sa digg sa boroom nga sant yàlla ca loolee te loolu dafay mat bàyyi xel bi nga nekkee it bi nga gëmee yàlla it yàlla may la yeneen occasion ci exemple comme bu dee xeetu yonent bi yaa def la nga bokk ko ci xayr ummatan uxrijat linnaas yàlla boolewul la ci nitu noox donte ñu baax lañu nitu Muusa waaye boo ko la ci ñi nga xam ne yàlla nee na kon bu waxee ummatin uxrijat linnaas xeet yi gën ci xeet yi ma boole la ci loolu cant war ci ab jaam bi mu ciy sant yàlla boo wax di ko wax alhamdulilah ak wan yàlla ne li nga ma defal yëg naa ko yàlla defal la xéewalu bool la ak rasulullahi salaa sallam sa muy sa imaam muy sa njiit jox la jox la alquran yooyu yëpp xéewala yoo xam ne yàlla bëgg na jaam bi yëg yëg yëg yàlla ci loolu moo tax ñu di waxoon ci xadis ne inna allaha taala yuhibbu an yara athar nimati ala abdihi waxoon ne yàlla di dafa bëgg bu la defalee na nga jëf waaye jubile luy war a ne yàlla yëg na ne li nga la defal kat yëg nga ko yow mm-hmm. moo tax yàlla dafa bëgg ñu wax reconnaissance yàlla dafa bëgg nit ki yëg ko maam jaam bi yàlla dafa bëgg jaam bi na yëg yàlla moo tax yàlla nañu bu ngeen yëgee xéewal li ma leen defal dama koy dolli la in shakartum la azidannakum kon yàlla moom xam na ne defal nañu xam ne defal nañu waaye mu nag bu ngeen ma njukkeelee ci defal gi bu ngeen ko yéegee rek ma dool leen bokk yi xoolal xéewalu nekk nit muy benn yàlla may la xéwlu nga am ay gët léegi bokk yi bët yi di xool nii bu yàlla ne woon da ngeen weer facture kenn doo ko attan am ay junni yu bari yoo xam ne amuñu xéwlu seen bët mën a mën a xool am na ñoo xam ne am nañ ay doom yu bari bari te suñ ci gis kenn léegi nag xéwlu bët bii nga mën ko jëfandikoo nam la neexee loolu loolu loolu sant war na ci ab jaam waaye xool xoolal xéwal yàlla àdduna bi ni mu ñu ko defalee ñu mën cee dëkk wala xad makkanakum fil ardi la wax maanaam may ngeen am possibilité ak kat nu mën a dëkk ci kaw suuf wa ja'alna lakum fiha ma'ayish defal leen ngeen am oxygène bi doy sëkk ci kaw suuf ci air bi defal leen fi suuf su yaatu kenn du ci taxaw muy ma bëx def ci ay rawaas yi an tamit mu ngir bañ suuf si jaayu defal leen fi ay dëkkuwaay ay géej ay àll defal leen fi ci biir suuf si li ngeen mën a dundee waaye lu mu ci teg qalilan ma tashkurun yéegu leen ko mooy loolu yéegu leen li li ngeen am yéegu leen ko xoolal loolu yéegul leen leen yàlla defal qalilan ma tashkurun jaam bi yàlla mayaat ko ci xéewal googu ndax dañ wax ne yàlla bu ñu bind ba noppi doog a indi fi ñu war a dëkk du neex waaye da ko waaj ba mu sotti doog ñu indi yàlla bëgg jaam bi yëg loolu kon jaam bi buy dox ci kaw suuf sax suuf si yaatu ma am espace bu yaatu yaatu loolu na ci yëg yàlla xoolal yàlla may la xéewlu nga am say tànk mën a dox foo nga dem dem fa waaye léegi tànk yi lii séq dem ak a dikk loolu lan la liquide bi ne ci tànk yi looloo boo ko manqué woon tey kan mënoo ko mën a jox yàlla bëgg nag kon tànk yu ma jox nga sant ko ci te daa ñëw ci ni ci sant yàlla yàlla may la xéwal ay nopp yu dégg yooyu yëpp ay xéwal la ndax yàlla dafa wax kat xéwal yi mën leen ko lim nopp yu dégg léegi xoolal nopp yi bokk yi ne ko yàlla xereñee nga mën ko mën cee dégg kàddu xam ne kii sama bàyyi la mhm. kii sama yaay la kii sama rakk la kii góor la kii jigéen la lii fas la lii nag la nangam nangam loolu sew sew la de mhm. yu xóot loo xam ne yu mat a bàyyi xel la mhm. yàlla bëgg nag loolu it yëg ko waaw nga yëg ko may la xéwlu nooyi ngay nooy léeg-léeg nit tawat dem hôpital yi samp ko ay ay ngir lan mu mën a am oxygène bu mu te dañ ko jaay lu cher nag loolu yàlla may ne nga am noo yuy dem ak a saa su nekk cent pour cent dem ak a ñëw loolu xéewal la ci xéewal yàlla yi yàlla nag yooyu la bëgg jaam ñi yëg ko mu ne nag bu ngeen ma sante ci loolu ma gën ko yokk waxaan na feneen ci suuratu zumar ne yàlla de bëggut ku yégee di waaw wala yarda li ibaadihi lkufra yàlla bëggut ngeen ñàkk yitte ci jëmmam ji ci lim leen defal wala yarda li ibaadihi alkufra lu tax mu boobu wala yarda ndax kat bu ñu weddee xewlu yàlla yi musiba mi ñun lay ñëwaat yàlla waxoon nag ne inna allaha kaana bikum rahima yàlla daf leen yërëm yàlla daf leen yërëm jaam bi yàlla bëggut muy def lu koy indil toof toof ëllëg moo tax mu ne walaa yardal ibaadil kufra lu mu ci in tashkuru nag yardahu lakum ok bu ngeen ko nag njukkeelee yëg li meen defal nag yàlla loolu la bëgg ci yéen waxaan na feneen ne yàlla bu ngeen yéegi lim leen defal ci xéewal yi moo tax yonent bi waxoon na ko ci xadis bu leer nañ yonent bi wax na bis ne jaam bi bu xëyee ne ko yow yàlla lépp lu xëy saa bu ma xëyee daal lu ma gis ci xéewal direct te mooy ma xëy yeewu samay tànk dara ne ci samay nopp noonu sama bopp méttiwut dara jotuma mooy ma asbabee min ni'matin wala ma xëy li ma nit ñi di jox mooy aw bi ahdi min xalqika fa min ka wahdaka laa sharika lak wala kal hamdu mooy gi nga xam ne dong yaa ko wala ko ku xëy wax sax faxada adda dugda sa wax subaa bis ba moom matal nga ko moo tax yàlla yàlla wax ci Suleymaan waxoon ko ne wa man fi ma yashkur li nafsi wa man kafar nag fa inna rabbi ganiyun karim yàlla boo ko boo ko santut du ko wàññi dara waaye jaami subaa boppam lay lor moo tax baatu sant nekk loo xam ne lu lu tuuti la waaye ñàkk ko def ak a danger ci ab jaam waaye ak ko mën a jural lu baree baree bari moo tax yàlla bëgg li muy defal nag ñu yëg ne yàlla defal nañu dara ñu delloo ko ko delloo gi du ko jëriñ dara waaye ñun lay jëriñ insha allahu taala jërëjëf Serigne Moustapha ci kàddu yi am solo yooyu nga xam ne doon ko ko yëkkati muy kàddu yoo xam ne itam ku ko dégg xam ne kàddu yi boroom xam-xam la noonu nga ko waxee ci cant itam li nga fi nga ubbee rek mooy li ëpp solo mooy doomu aadama li mu war a njëkk a sante boroomam bi boroomam di sàkk mbindeefam yi donte ñëpp ay mbindeefam lañ waaye dafa ca daf dafa caa daf laa tànnoon def la nit te nit kat moom la yàlla jagleel wala xad garam naa benn aadam kon bu yàlla dogalee mu def la nit waaye am ñu def nit ba pare mayu leen sansub ñu gëm ko mu jox la sansub nga gëm ko waaye bi muy joxe sansub nit ñi gëm ko am ci ñoo xam ne biñ ko gëmee yàlla joxu leen espace ñu mën a dundee seenu ngëm yàlla ak seenu jaamu ci tranquillité yàlla defal la ko mel ni loolu nag da ciy dégg ne Cheikh Abdoul Latif mi nga xam ne mooy boroom pénc mi déggoon na loolu ba tax dundam gépp mu jeexal ko ci sant boroomam ak di ko jaamu ba taxit nag mu jàpp ne boroomam daal defal na ko loo xam ne war na mu sàkk bis boo xam ne daf ko ciy sant waaye jaarale ko ci li ci jëmm ji nga xam ne lépp mooma mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul Serigne Mamor Mbacke. bismillahi rahmaani rahim. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul xoqdatan min lisaani yafqahu qawli. wajhal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi urshida. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa suñ borom gën a yàggal ab taxawaayam bu baax a baax ba mu naa ba mu àggale naal yi nga xam ne naanal na ko cheikhul xadim di nuyu ak di siyaare borom barab bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Abdou Latif suñ borom gën ko fi yàggal di nuyoo ko siyaare mbooleem koo xam ne mi ngi seetaan wala muy dégg suñu kàddu di sant bu baax sëriñ Moustapha Dieng ci waxtaan wu am am solo bi nga xam ne indi na ko ak yaatal ki nga xam ne indi na ko muy lu am solo mu wax ci cant lu ama ama am solo loo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na koo dégg nga xam ne kon maqaama la ci maqaamaat yi nga xam ne nit da cay mën a àgg ngir mën a sant ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ne wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a waaye wa jaala lakum samaa wala absaara wala afidata laallakum tashkurun dama leen a génne ci seen biiri ndey xamu leen dara ma def ci yéen comme ni ko Cheikh Moustapha waxee ak dégg def ci yéen lépp waaye xéewal yi ma def ci yéen lépp laallakum la wax ndax ndax ngeen ngeen ngeen ngeen sant waaye lii tegtale ne ak cant yombut lu jafe-jafe la nit ki mën na ko bëgg te du ko def iblis laanatullahi alayhi bi nga xamee ne doon na waqwante ak boroomam bokk na ci yam ko waxoon ne ko dinaa ko def ngir mere gi ma la mere ba mu waxee ba ba ne ko summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajidu aktharahum shakirin nit ñi danaa leen féete ci wet yu nekk ñi mu féete leen ci càmmooñ ñi mu féete leen ci ndijoor ndar képp leen ba li ëpp ci ñoom duñ la sant kon loolu mooy tegtale ne sant dara ju kawe kawe kawe la am ci lislaam ba nit ki dana ko bëgg sax te du ko man comme borom pàkk bii bu fekkee ne suñu borom dimbali na ko ba mu bëreeg saytaane ba man ko ba mën a sant kooku day wanewaat euh, dara day wanewaat daraja yi nga xam ne sun borom subhanahu wa taala jégleel na ko sëriñ Abdou Latif xam naa incha allah bu ñu bu ñu dikkee dëgg-dëgg ci euh, li nga xam ne moo waral cant gi danañu ci dikk incha allah waaye sëriñ Moussa wax na cant li nga xam ne am na ko ak ci lislaam dayo bi nga xam ne cant am na ko waaye it suñ borom subhaanahu wa taala ni nga xam ne sëriñ Moustapha wax na ko képp koo xam ne mas la defal xéewal ci àdduna la muy xaar ci xéewal yooyu mu la defal ba xam da ko sant wala doo ko sant ni ko sëñ Moussa waxee léegi si si yonent yàlla Suleymaan lu mu waxoon li borom de xéewal yi yépp daf koo def ngir di ma natt ba xam a ashkuru am akfur damay sant wala damay weddi wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim mu tegtale ne kon képp koo xam ne suñ borom defal na la xéewal xéewal ga lam rëy rëy rëy lépp am nattu la ci yow ba xam xéewal googu da nga ko delloo sun borom wala ko doo ko delloo delloo gi mooy nga sant ko ñàkk ko delloo mooy nga weddi ko sëriñ Abdou Latif nag amut xéewal gu gën a kawe barab bi ñu nekk muy barabub saam barab bi bokk na ci barab yi nga xam ne jumaa jii ñu nekk ci suñu ginnaaw cheikhul xadim radiallahu anhu moo ko rëdd ci tànkul boppam cheikh mohamadul Moustapha ak Cheikh Mamadou ak Serigne Mor Soxna moom borom saam ñoo ko sàkket kon xéewal gu toll noonu boo àdduna doxee ba mu dellusi ci ci loxob Serigne Abdou Latif te magut ci doomi borom saam yi kon xéewal la boo xam ne suñu borom da ko ci nattu ba xam dana ko sant wala du ko sant waaye kenn ku ne xam ne na sant na yëmut ci sant waaye dafa woote ñu koy santale ni ko Cheikhul Xadim radiyallahu anhu waxe woon kon jëf ji nga xam ne sëriñ Abdou Latif def na ko woote ak cant day wanewaat ne moom kat ci góor yàlla yu mag yàlla bokk kon euh, sëriñ Moustapha li nga wax ci cant am na solo lool yaatal na lool waaye nag nun ñi nga xam ne it ñoo ñoo ci ñoo ci dégg war nañoo gën a góorgóorlu bu baax ci lépp loo xam ne sun borom defal na la ko ci ay xéewal comme ni ko sëriñ Moussa waxee ñu koy delloo suñu borom nuñ ko koy delloo dañ koy sant ci suñu làmmiñ waaye dañ koy sant ci suñu jëf ñu ko cheikhul xadim waxee woon ne shakartuhu wala azalu ashkuru wa bi lisaani wa fuhaadi ashkuru mhm. nga xam ne day sant ci ay jëf di sant ci làmmiñ waaye di sant ci xolam kon sëriñ Abdou Latif it moom shakir la woon boo xam ne ab santaakoon la ci lépp loo xam ne suñu borom defal na ko ci ay xewal ba moo waral jataay bi moo waralit bisub suba bi kon sëriñ Asan ñu taxawlu foofu ba egsiwaat incha allah. jërëjëf sëriñ Mamor noonu nga diggee rek ci bis bu am solo bi nga xam ne mooy bis bi sëriñ Abdou Latif daan def te di ci sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul te ku ne xam na ne sant sëriñ Tuba mooy sant sunu boroom subhanahu wa dikk nga ci nag ci dikk gu am solo mooy jaam bi war naa yëg ne lépp lu suñ boroom def ci moom defu ko ngir bégale ko ko waaye def ko koo defal ngir coobarewu mooy waral nag gaa ñu baax ñi lu leen yàlla defal dañ koy delloowaat jëf ja loolu mooy sakkanal jëf ja loo tax suñu jàmbaar ci Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul woote bis bu màgg boobu di màggal Tuuba ngir santu boromam Euh, boromam nga xam ne loolu mel na ni message boobu Serigne Touba doon jàllale mel na ni Cheikh Abdou daf koo dégg bu wér a wér a wér kon Serigne Abdou Jaxate la ñuy jébbal kàddu gi du ñàkk bis bi itam comme moom ci loxol Serigne Abdou la yaroo du ñàkk dundinu mu dikkal ñu tuuti ci dundinu Serigne Abdou ak bis bi ak euh, asbaab yi nga xam ne sabab na Serigne Abdou Latif woote bis bi wala jàpp na ne bu wootee bis bi euh, sabab yooyu moo tax kon Serigne Abdou Latif Jaxate bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu àq <coughs> di balu ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan yàlla boole nu baal euh, di sant yàlla bu baax ci jataay bi te di sant sëñ Moustapha Dieng ak sëñ bi seen waxtaan wi daanaka lépp moom tënk nañ ko ndax bis bi li ko waral mooy sant rek sëñ bi sos gim sos bis bii di ci sant dane sëriñ Touba lim ko defal loolu la moo tax mu bëgg sant bis bi sant gi nag li tax mu yaatal ko cantuk boppam rek da ko cee doyut moo tax mu yaatal ko bëgg ñëpp santale ko ndax li ko sëriñ bi defal loolu mooy sababu bis bi sëñ bi nag dafa bokk ci gaa yu baax yi ñi nga xam ne am na benn woykat boo xam ne daa waxal ne lillaahi xawmun isaa xallu bi mansilatin alla nada wa alat fil jawi anwaaru tastaaquhum kullu ardin yansiluuna biha ka annahum bi biqaail ardi amtaaru sëñ Abdou Latif ci ñooñu la bokk am na benn waay benn nitug yàlla koo xam ne dane yàlla de am na nit ñoo xam ne suñ wàccee ci barab barab boobee day daa maanaam tabuk suñ boroom dafay wàcc barab boobee it jaww ja day fees dell ak leeri yàlla mu ne ñoom day suuf suñu wàcc suuf soosa da leen di sopp nga xam ne suuf suñu wàcc rek suuf sa da leen di sopp mu ne ñoom de nañ mel ci suuf sax nit taw mel ci suuf ni la ñu mel ci barab bu ñu wàcc noonu lañuy mel ko xool loolu rek daal di koy gis fii ci saam gis ko ci sëñ Abdou Latif fu fu fu am daara rek wala mu nekk fa loolu danga koy gis ba mu ko defee kam ka tax mu ko ko doon wax kooko ne ko isaa laqitahumu aw kaan aw kunta saairahum bi yumnihim faaraqatka dahra aw saaru is bi siyaarati talqa kulla makrumatin wa yantafi bi liqaai alfaqru wal aaru mu ne ñooñu ngay wax de soo tase woon ak ñoom rek wala nga dem siyaare leen nee na ca ngay tàqali ko ak i bàkkaar sëñ Abdou Latif ci ñooñu la bokk kon bis bi loolu ku ne war na cee fas lu mel noonu nee na bi yum nihim ci seen barke faara xatkal aw awsar ci ngay teqalikook ay bàkkaar is bi siyaarati talxaa kulla makrumatin ndax siyaare ga nga leen siyaare ca ngay taseek bépp tiraanga wayanta fii bi liqaail faqr wal haar na daje ga nga taseek ñoom ca ngay tàggalikoo ak ñàkk ak gàcca kon loolu mën nañ koo xam ne loolu lépp moom sëñ Abdou Latif làmboo ko kon xanaa ñu yem foofu rek ba dellusiwaat. macha allah jërëjëf sëriñ Abdou Latif Jaxate mbokk yi ñuy bàyyi xel ci rajo Mbàkke 100 point 6 ak Lamfal FM 97 point 4 waxtaan wi jeexee lu ci raw nit rek dana ko mën a topp ci Rafah TV incha allahu rabbi kon Serigne Moustapha noonu ko tàmbalee woon sa biir waxtaan rek cant kon mel na ni def ko am na lu ci nit ki jële waaye ñàkk ko def it am na inconvénient yoo xam ne mën na koo jëlal nit ki nga diggal ñu ci rek ci nu mu gën a tënk ko incha allah. ok jërëjëf euh, sëriñ Xasan jërëjëf sëriñ Mamoor jërëjëf sëriñ Abdoulatif euh, euh, niñ ko ubbee woon sant day lu am solo ndax dañuy wax ne yàlla lépp lum ñu sant insiste ca maam di ca wax lu bare bari loolu dafa làmboo suñuy njariñ te ku ne xam ne yàlla dafa bëgg jaam bi dox ci li ko jariñ moo tax lu mu ñu sant ne dinañ ko def rek suñ njariñ la yàlla dafa bëgg jàmm bi nekk ci jàmm waaye nekk ci li ko jariñ moo tax benn shaayir waxoon na ne ashukru afdalu ma qad kunta multamisan bihi ziyaadatu inda allahi wa naasi nee na lépp loo xam ne danga caa bëgg a am ndollan moo xam ci yàlla wala ci nit ñi nee na baatu ashukru la muy sant yàlla amut xol yàlla amut lu muy lu ñuy bëggee comme ni ko nit ñi di bëggee waaye nag bëgg na bu ñu defee lee ñu gis ko moo tax ñi xam yàlla ñépp jël buntu sant mu bokk seen bunt yi gën a kawe ndax boo demee ci maqaamatul yaqin yi gor yàlla di yégee dañ ci fekk ashukru muy sant étape bu am solo la ca moo tax sëñ Tuubaa booy xool mbindam li mu waxoon sànq ne yàlla li mu defal ci jumtuwaay yépp xéewal la xam nga shukuri bi aqlaami wa qalbi wa jussati gis nga foofu nee na maa ngi sant yàlla ci sama xalima gi yàlla may ma xalima goo xam ne saabu bu sëppee ci daa ci lu neex yàlla la jëm loolu sant yàlla war na ma ca ndax am na koo xam ne muy bind lépp lu bon la li mu bind lépp ab safaan la Sëñ Tuubaa ne man yàlla may na ma sama xalima gi di dugg ci lu baax di ca wax ku ma sant ci loolu waaye waxal bi sama xol bi di xalaat lu baax saa su nekk am kooku xolam lu bon rek lay xalaat ma sant yàlla man ci sama xol xalaat gi muy xalaat lu baax waaye waju sati sama jëmm ji nga xam ne dafa sax ci ak jaamu yàlla sax ci ak mbaax ma sant yàlla kon jaam bi cër yi la suñ xoola ci ci ci jë ci jës bu chakartuhu id xassani bi xidmatil ma xissani yàlla may na ma ak ak ak jëf ju mooy lan dafa dafa am xusoosee mooy jagle ma bokk ci ñi léegi la yonent bi sallallahu alayhi ma sant ko ci loolu waaye yàlla may ko ci loola mu am ci lu kenn amut li ma waxoon ne kon sant mooy buntub ziyaada mu ngi noonu bi mu sancee dëkk bi lu mu waxoon chakartuhu li annahu qad saaqani watan bihi nafa ma aaqani ñoo naa ci dëkk boo xam ne la ma doon ragal ci bidaa ak lu bon lépp fii la ma ko yàlla dàqalee kon yàlla jërëjëf mm-hmm. ba mu koy wax nekkoon ci mbaarum ngeer xoolal tey fi dëkk bi toll lu may lu waral yokk googu baatu shukru moo ko may loolu kon jaam bëgg ndollam sant mm-hmm. léegi nag yàlla dafa bëgg ku ko sant mooy sant yàlla mooy yàlla def na la ngay nga nekk doomu nga nekk doomu adama nit yàlla teral nit sàmmal nite gi sàmmal nite gi moo tax jàmm bi lépp lu koy teqale ko nite loola day dugg ci ñàkk sant moo tax kii màndi bay tërëf bi mu màndi bay tërëf kooku nit a jóge na ci moom kooka santut kooka santut jaam bi buy jëf loo xam da koy dugal ci mala yi ci mala yi kooku ba tey santut santut moo tax yàlla bëgg na li may defal nga sant ko ci léegi nag nu ñuy nu ñuy sante yàlla maanaam ci xéewalam yooyu ci misaal tey jëmm ji ab jumtuwaay bu la suñu boroom jox la neel dama la koo dénk loo ci liggéey yaa ko moom waaye nag bu mu yàqu ci misaal tey koo xam ne dana la léegi cent millions yi nii capital loo ci am bénéfice yaa moom waaye nag bu mu yàqu loolu wax yàlla pour am ci benn benn somme bi dana war a yomb kon jëmm ji yaa neen dama la ko jox muy xéewal loo ci jaamu yàlla yaa ko moom ëllëg waaye bu mu yàqu bu mu yàqu mooy boo def jëmm ji loolu yóbbu safara ëllëg kon nga war a sàmm jëmm ji moo tax jaam bi lépp lu yàq jëmm ji rek mooy loo xam lu yàq xel mi lu yàq xol bi lislaam xaraam ko ci moom kon cant gi mooy istimaalu ni'mati bi taati mooy utilise xéwal gi jaamu yàlla nu jàmm bi di sante xéwal xéwalu bët mooy di ca xool yàlla gërëm waaw waaye bët yi boo ciy xool lu xaraam boo ciy xool lu baaxut léegi yaa ngi ci kufru ndax la yàlla tere nga nekk kon istimaal ni amati bi taa mooy mooy loolu bi topp mooy nopp yi suñu boroom jox la noo ci sant yàlla de ci déglu lu yàlla bëgg waaye yàlla jox la ay nopp ne la lii ak lii laa bëgg nga déglu ci nga lànk suba yaa ngi weddi nooy sant yàlla ci loxo yi ba tey mooy def ci lu yàlla gërëm tànk yi noonu xel mi noonu jëmm ji lépp noonu kon cant gi mooy def ci cër yi la yàlla bëgg moo tax mag ñi dégg sant ñoom dañaan fexe ba seen jëmm ji ñu not ko ci ak jaamu yàlla fa yàlla jaarale mbir mi it ñi teg ñi jox ko cër ba ca war yonent moo waxoon ci xadis ne man lam yashkuri naasa lam yashkuri laaxam waaw yàlla nee na li may defal li muy bari bari bari wàcc ma def ko direct waaye dafa nekk ñox indirect waaye ki ma jaarale ci moom xéewal gi boo ko santut yàlla nee na bëgguma sa cant sant yàlla gi mooy nga sax jaamu yàlla gi ki ko yàlla jaarale ci moom nga jox ko xorma jox ko yàlla jox loolu moo taxoon borom barat bi moom déggoon baatoob sant mooy sant yàlla gi mooy dëkk na daa iman ci jaamu yàlla cëram yépp mu nuru ko ci ak jaamu yàlla waaye nag ki nga xam ne mooy sabab bi yàlla bi tax yàlla bi tax mel nii it mu sant ko te mooy fexe ba mel noo xam ne kuñ ne kii kat dafa yaakaar kee wala kee mooy kilifaam ku ko xool xam na que kii moom sant na yàlla te mooy ma nga dëkk ci la kilifa ga bëggoon moo tax léeg wax ko li la mën a it même doomi soxna it nekk nga nekk doomi soxna nattu la bu yàlla tool di xool ba xam boo saxee ci doomi soxna ga sax ca mbaax ga dundal ko sant nga waaye boo melee ne rek weddi nga weddi nga moo tax mag ñi maanaam déggoon baat boobu cant bokk na ci ay njariñam mooy foo fekk kuy sant yàlla du ko mbugal mukk mukk ci àdduna doo am tolof tolof loolu yàlla moo ko wax maa yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kaana allahu shakiran alima yàlla nee na duma leen mbugal mukk duma leen teg mukk ay musiba in shakartum wa amantum kon bi njëkk jaam bi buy sant na ko wóor ne mucc na ci mbugalum yàlla kon bu njëkk mooy sant kon sécurité la ci ne yow moom mucc nga ci mbugalum yàlla ci àdduna ak àllaaxira waaye bokk yi sant maanaam day suuxat xéewal ni nga xamee ne boo jëmmatoon fii ak garab doo ko roose day dee xéewal yàlla it li koy suuxat mooy sant lii suuxat xéewal yàlla yi mooy sant moo tax yonent bi waxoon ne ku yàlla may xéewal santoo ba yàlla jël ko ñàkk nga garab gi xas dee moom sànni rek wut geneen neen dañu wax ne ba ba balaam nekkoon boroom xam-xam bu mag bokkoon ci jamono yonent yàlla Musaa la nekkoon amoon wilaaya gu rëy goo xam ne jaaxal nit ñi mujj dem ba am natt boo xam ne bu ñuy wër ñu gën a wéddi yàlla ci kaw suuf ci la bokk am na wala yu mos a laaj ne ko bala am li mu la jaamu ak turu turu yàlla yu mu yoroon ni mu rëyee ak fi mu àggoon waa bala am lu ko lu ko teg lii yàlla ne ko mooy de xéwal li muy bari bari bari mosuma sant benn bis boppam rek la gisoon moo tax ñu ne kon bala am nekk la rekki xéwal ga mooy mos sant yàlla ci loola mos koo sant ci loola moo tax yàlla jox la xam-xam. sant ko ci xam-xam ba te mooy yaatal ko jaamu ko ca day gën a doolee ko ndax rek la in shakartum la azidanakum lu bëgg mu doolee ko rek dee ko suuxatee baatub sant kon sant day téye xéewal da koy yeew sant day yeew xéewal da koy téye waaye bokk yi li gën a am solo te yàlla wax ne lu ci waay am lu mu néew néew lu rëy ci yàlla te mooy ngërëmal suñu borom sant da ko may ndax wa in tashkuru yardahu ko bu ngeen sante yàlla bëgg na loolu day na gërëm te nag wa ridwaanu minallaahi akbar la yàlla wax maanaam ngër ngërëm borom balaa xëy ne ridwaan nga dañ koo nakki daal ngir lan li taazim wala li taqlil am ñu wax loolu mooy ngërëm la yàlla daal lu mu néenoo ci ab jaam rek lu rëy la te nag ngërëmal yàlla bokk yi ku ko am texa nga fii texa nga fale te sant day maye ma yàlla xanaa mbokk yi dañ bàyyi xel ne nit ki nit ki léeg ngis koo xam ne mën naa bari lu muy lu muy yor jukki alxuraan ci misaal mën naa bari lu mu julli ay rakk mën naa bari lu muy def yu baax yépp waaye xol ba dëgg-dëgg cant ga ca war defu ko gis koo xam ne xëy na sax yi bariwu ko ëpp ko cër ci yàlla ndax kooku xol baa dëkk ci sant te yàlla kat li ma wax toujours li ci biir li ci fii la soxla yàlla li ci xol bi la soxla moo tax yëg yàlla bég ci li ma la defal yàlla dafa dafa bëgg loolu kon cant day may ngërëmal suñu borom bu wér waaye cant it day yëgal jàmm bokk ci li ñuy wax maqamatu saalihin ndax lu yàlla waxoon nu yent yàlla nuux innahu kaana abdan shakura lu la waxoon lu mu waxoon ibrahima shakiran li aanu umi lu mu ca teg ijtabaahu wahadaahu ila sirati mustaqim ibrahima ba mu sante an umilaahi tamu yàlla def na ko mu nekk bokk ci ulul azma yàlla tegal ko ay ndëgg sërëx di ko xool muy réussir ko yàlla natu ko ci doomam ne ko ko mu jàll ci yàlla na ko ni ko sa séet bi génne ko tey bu fi teg ko ñaaral bees amagul 3 mois yàlla ne la génn ko dëkk bi bàyyi ko ci àll ba yàlla natu na ko ko mu réussir ko yàlla def ko mu nekk imaamal li waaye da doon xew xéwal yooyu lu mu def icca baaxu yàlla tànn ko waaye nag wax wahadaahu ila siraat mustaqim kon xéewal ñett ñi ma tuddi rek mucc ci mucc ci mbugalam suñu borom am ngërëmal yàlla xéewal ya sax bokk ci maqaama saalixiina yi yépp cant da ko jural ab jaam moo tax bunt yi ku bëgg mu ubbi ko ci yow ku bëgg mu yomb la dëkkil sant mooy day wax alhamdulilah salaam meñ waaye deel it wax li la yàlla defal ndax it a taxarisu bi niama shukru yàlla defal la xéewal nga de ko wax loolu loolu yonte mos naa wax ci xadis ne man maa gën ci doomu aadama yëpp maa ci gën waaye nag wala faxara tiitaroo ma de dama bëgg yàlla xam ne li ma defal yëg naa ko Sëriñ Tuubaa boo gisee léeg-léeg mu du may yu rëy rëy yu jéggi dayo moom xam na yàlla defal na ko donte bu ko waxee nit ñi widd ko it dana ko wax ngir lan jooxal baatub sant yàlla googa loolu loolu moo jublu au moins bi ma tal bëgg fa hadis la yàlla wax moo tax kon wax xéwali loolu ak cant la kon loolu la mën nañu taxawaa noonu incha allah ba kaddu gi ñëwaat bu ñëwaat na léegi ñëw nag ci li ñuy wax simaaru shukru léegi sant bu doon ak garab meññeen mi mooy lan incha allah taala daal di kii jërëjëfati sëriñ Moustapha li nga indiwaat ci cant moom macha allah dégg nañ ci aayab suñ borom boobu mu wax ne la in shakartum la shidannakum wala in kafartum inna hadha bi la sadid nga dégg ci nekkoon kon ndekekat bëgg a sori mbogalum suñ boroom sant waaye bëgg a suñ boroom ak cant cant nag bu jëggee dayoo comme ni nga ko waxee da ngay day mel ne gaañu baax ñi taamu nañ ci di ko wax ak di ko fesal wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis loolu alxuraan moo ko wax kon am na ci xéewal yoo xam ne laaj na wax wax nañ ne ku tedd ki nag daana wax ne sant bu ak damu rek cant ga dafa des kon sëriñ Mamor sëriñ Abdou Latif ndax yàlla daf koo defali xéewal rek mu sant ko walla dafa xam ne sant yàlla war na mu di ko sant kon loolu lañ dikk nga ñëwul ci ak tënk rek ndax waxtu waa ngi doxantu te daanaka li ñu dese ci waxtu bëreetut insha allahu rabbi euh, bismillah sidna Hasan masha allah Cheikh Mawdul Moustapha ni mu dikkaatee ci ak yaatal leer na lool te jot na masha waaye borom barab bu tedd bi sëriñ Abdul Latif moom dafa bokk ci gaay yi nga xam ne suñ borom daf leen a euh, tax si sal xam ne dañoo am ak jagle ci moom ndax nit ki du xëy rek am lim bëgg lépp Seexul Xadim radiyallahu anhu bi mu jógee di wut li nga xam ne moom la ko yàlla defal jaar na ay jaariwaay yoo xam ne yu bari la te wuute waaye yu mettee metti la it waaye ba mu demee ba am la mu bëgg la doo wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nag ma santale sama borom waaye sëriñ Abdou Latif li nga xam ne mooy euh, waral bis bi di bisu sant doomu aadama bu gënee àdduna suñ borom bokk na ci xéewal yi nga xam ne daf koy xéewale nit mooy mu boole kook ay waajur yu baax nga xam ne boroom xam-xam yi dañuy wax ne waajur bu baax yóbbal la ci koo xam ne day tukki nit ki nag buy tukki am ab yóbbal nekk ca yoon wa te demut du tax mu àgg fa mu jëm waaye sëriñ Abdou Latif radiyallahu anhu kenn ku ne xam na ne suñ borom dimbalee na ko ay waajur yu màgg yu tedd Cheikh Mouhamadou Diarra Boom Sam kenn ku ne xam na ko waaye waajur bu jigéen it di soxna Faati Moor Ture moom it di soxna su tedd ku borom dimbalee loolu lépp li tax mu am xéewal yu màgg yii ba ngay delloo sunu borom di ko sant ci laa bëgg a ñëw ndax xéewal gu màgg gu rëy gi weesuwut sa waajuru góor de eh, dundoog moom lu ëpp ñeenti at ndax Serigne Abdou Latif 1919 la gane àdduna borom saam mi nga xam ne mooy waajuram bu góor wuy ji boroomam eh, cent vingt 1921 nga xam ne ñaari at ñett rek lañ fekkante jamono te teewut li war a am ci àdduna lépp suñ borom defal na ko biñ nag li mu war a am ci àdduna mooy du caagane àdduna yi kese. déedéet ñoom adduna allah dañoo jaayoon seen adduna bépp jënde ko seen alaxira wala laaxiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila nga xam ne ñoom dañoo xam ne alaxira moo ëpp ay darajaat moo ëpp ay ngëneel moo tax liñ doon liggéey ci adduna lépp ngir ëllëg la waaye nag du ñàkk ay tasiraat ay jeexit yoo xam dafa day feeñ ci adduna jeexit yooyu